ñaar timote ñaar timote saar benn. wàll ci linjiin di ñaareelu bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko timote man pool ndawul yeesu kirist coobareeg yàlla ngir xamle dund gi nu yàlla dikk te féete ci kirist yeesu maa ngi lay bind timote sama doomi diine ji ma bëgg na la yàlla baay bi ak kirist yeesu sunu boroom may yiw ak jàmm fu ma toll maa ngi lay boole ci samay ñaan di ci sant yàlla mi may jaamu ci xel mu dal ni ko samay maam daan defe guddi ak bëccëg bu sama xel demee ci say rongoñ ma bëgg laa gis ba am mbég mu réy maa ngi fàttaliku sa ngëm gu dëggu gi nekkoon ci sa maam Lowis ak sa yaay Onis te mu wóor ma ni sax na ci yow it looloo tax maa ngi lay fàttali nga xambaat taal bi yàlla taal ci yow di may gi mu la jagleel bi ma la tegee samay loxo ndaxte xel mi nu yàlla sol du ànd ak ragal waaye day ànd ak kàttan mbëggeel ak moom sa bopp bul ruus ci seedeel sunu boroom mbaat yi li ñu ma tëj ndax turam waaye bokkal ak mantiis ci xamle xabaar bu baax bi wéeru ci kàttanu yàlla moonu musal te woonu ci dund gu sell ci lu ajuwul ci sunuy jëf waaye ci dogalu boppam ak yiwoom wi nu yàlla may ci kirist yeesu ba àddina sosoogul te léegi biral na ko ci feeñu sunu musalkat kirist yeesu mi nasaxal dee te feeñal dund ci xabaar bu baax bi te muy dund gu sax te yàlla fal na ma ndaw ak jàngalekat ngir may yégle xabaar bi looloo tax ma jànkoonte ak tiis yu mel nii waaye rusuma ci ndaxte xam naa ki ma wékk sama yaakaar te wóor na ma ni li ma ko dénk man na koo denc ba bés ba toppal ci tànki wax yu wér yi nga dégg ci man jàpp ci ak ngëm ak mbëggeel yu nu am ci sunu bokk ci Yeesu Kirist te nga sàmm bu baax li la yàlla dénk wéeru ci xel mu selli mi dëkk ci nun xam nga ni waa diwaanu asi gépp won nañu ma ginnaaw ñu deme ni ki ak ermosen waaye onesifoor daana faral di dëfal sama xol na boroom bi sotti yërmandeem ci këram rusul woon sax ci samay jéng waaye bi mu ñëwee dëkku rom wut na ma fu ne ba gis ma na ko boroom bi teeru ak yërmandeem ca bés ba umpulewoo it coono yi mu daj ngir dimbali ma ca dëkku efes